2021. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. salaamaaleykum sunu mbokk internet diaspora 221 ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen euh, émission rek ñu dalal fi tey gan bu am solo ñu koy wax mama Aida Saliou mama Aida Saliou bu Serigne Saliou ko xamul dégg nga mama maa ngi lay nuyu di la dalal ci diaspora maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàcc waay leen nuyu bu baax a baax a baax a baax li may wax rek euh, ñu ngi ci mois de janvier kon ñu ngi ci fin d'année ba léegi rek ah di wax bonne heureuse année tout le monde rek waaw di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla mucc ak mucc la ci barki yonent bi alaatu wassalaam amin maman Aïda Saliou kon ni ñu ko waxee la suñu waxee maman Aïda Saliou dañ ciy dak yaay Wally Seck ñu ñëw waxtaane actualité du jour actualité du jour nag tey ku ne xam na lan la wàllum terrain yi Wally daa jëndal ay musiciens moom terrain ñeneen ñëw ne loolu amul lan moo ci sa xalaat daa def ñu ne defut waaw ñu ne defut nañ fexee def loolu moom li ci kanam raw li bët après li si des xam nga tey moom dañoo toll foo xam ne léegi maanaam am na yoo xam ne du ay commentaire man duma def kaa tey ci Wally ndax ku bëgg a wax toog ci peggu nit di wut loo ko waxal wala loo ko defal Wally moo toll noonu rek bu tollu woon noonu amaana bu am na ñoo xam ñu ngi jënd lu baree bare bari te kenn demul di ko saytu wal di ko xool mais noonu la toll ci xolu doomu aadama yi. lan moo tax bu waale defee dara rek mu ànd ak coow. waale bu weeroon bu weeroon pantalon léegi buñ ko fóotaloon xam naa fi ñuy fóotalee waale la ñu xamul waaye bu ñu ko xamoon dañuy toog di xaar potit bi nga gis ko naan potit bi foofu lañ toll mais moom moo moom ñun loolu lañu ñaan yàlla ñoo ñaan yàlla mu nekk ci xelu ñëpp nekk ci bopp ñëpp nekk ci xolu ñëpp. ku la jaralut leen le du la du jaral yenn coono yi te moom dafa jaral nit ñi coono parce que moo ni tollu parce nag mooy borom réew mi nag mooy lëg daawur nag yàlla na jëm kanam waaye lépp lu ñuy xool ci lu ñaaw yàlla bu nu ko gis li ñuy xool maanaam dafa am ñu objet bëgg ci moom xool lu baax di ko gis di ko yëg di am jàmm ak tawfiix am ñoo xam ne faay la ñuy xool ak di ko yërndu waaye maa ngi lay waatal ci rasulullahi billahi wallahi tallahi barke yonent bi barki yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bàyyiwul waali sekk di xool faay waali sa faay maanaam yow ngay xool waali ci lu ñaaw yow di nga def taati neen bëcc gu dara am ñëpp di la xool te xaw ma fooy jaar. moment temps yi waali coow li da ko topp nan la fa demee. sant rek yàlla na ànd ak wér ànd ak tal ànd ak wér gi yaram ànd ak sante waaye ñii coow yàlla na nu coow woo naa leen coow li moom. àdduna kantàkk waalee ngi dox suñu borom di dogal lii muy dogal ci moom coow li day gën a bëri waaye du gën a wàññeeku yàlla nañ ciy gis nag lu rafet ak lu baax li waaye leneen luñ ciy xaar ci lu bon yàlla bu ñu ko gis ah loolu daal lay ñaan parce que foofu la toll moo di toll nag. waaw cuuraay lee xeeñ nag te neex daa ah, macha allah yaay ju baax nee naa la booy sëy toog ci der bi boo amee doom mu toog ci bank bi waaye boo boo sëyee toog ci bank bi boo amee doom mu toog ci der bi yàlla daa dogal nag ki ne Juuf jaaga moom ca der ba la toogoon. macha allah ñu nuyu sunu yaay ba tey dañuy des si actualité mais ba tey dañuy des si waali fan yi yëpp depuis deux jours ñu ngi dégg waale day takk ñaareel waale day takk amila yaa samedi te daanaka nag samedi lu ci des bareetul ay waxtu rek ci des lan nga ci mën a andi lu leer waaw waale faaw mu am ñaareel nag ci deux mille vingt quatre nag ah, yow yaakaar nga loolu ah waaw doo ma laaj man kay ma laajee ma wax la ñaareel ñuy lamlaamee la kon lu ñuy lamlaamee dëgg non xam nga yéen warul leen nekk ci ndax di wax naan waali ndax dina am ñaareel ak day takkam du takk xam nga sénégalais ñuy wérante depuis ñaareel kañ na bu yàgg da ngeen ci doog a jot ah bon non ñaareel bi am na. li ñuy waxtaanee dëgg la. non da ngeen may laaj yéen kay da ngeen a ñëw pour ut lu leer du moo tax ngeen di say micro. waaw parce que yow de loo ci wax soo ma gisee rek gis nga li ay leer bu soobee yàlla doot doot leen am loo leen di jaaxle doot leen am loo leen tiit. waaw ñaareel bi moom incha allahu rabbi ñu ngi koy xaar ñëpp ngi koy séntu waaye ñun niit ñoo ñu ngi koy séntu ñoo leen ko gën a yàqamti ñaareel bi nag du lenn lu dul lu rafet lu baax lu gën a sénégal yi loo xam ne sénégalais yëpp bay bëgg soxna ay dara da koy taamu ñu jox ko ko mu téye ko téye bu rafet ndax moo ko liggéey. maman yaa ngi ñuy tax ba tey leera boo ah waaw xanaa bëggoo dégg ñaareel bi rek 2024 lan ne. mais ñit ñi dañoo ne fay takk jabar ami yaa lay takk Amila yaa si. non man nag tur bi moom tur bi ma jàpp du lool de hmm. non non man de tur bi. ban tur nga jàpp ah da nga bëgg ma wax la bi. ah maman kay waaw ñun am exclusivité bi rek. ci diaspora 221 di nga tax nag ma wax ko rek te bëgguma ko wax. rek ñu bi ñëpp yow la ñuy déglu. te nag mun leen nag yéen tamit. waaw waxal rek yaay bi day moom wax dëgg yàlla dig si jamaa bi la wax dëgg yàlla. disk jama disk bi la wax dëgg yàlla imaam bi nu koy. imam bi nuy bu nuy may xutbaal ndax dina am jot fii ak sam dem de ah dig si jamaa am na kay bu anoor am na jamaa am na dig si yëpp am na ah jamaa bi kay wax dëgg yàlla na ngeen ñu ko ñaanal rek li ngeen ko ñaanee ni muy xeeñ di wax ngeen koy posté da leen ko posté rek bu yàggee dikk nii ngeen koy waxee sénégalais lu mu wax ba jaarale ko ci média bi fu mu jaar kay suñu borom dina ko def moom ñaan leen. sénégalais nga bëgg a tur la na wala fa demee noonu non non non non non du pour le moment ni moment bii nii nii hmm. euh, ñaareel bi taxaw ci Wally Seck moment bii ñu taxaw ma di ko xaar sama morom di ko xaar ma koy bëgg man Dix mi la. yow disque bi nga gis mooy ñaareel bi door bi laa gis jamaa man loolu laa gis loolu laa bëgg loolu laay xaar loolu laay gàttandu boobu seet daal laay gàttandu man. téléspectateurs yi ñoo ko jéggandoo mamaa nee na Wally disque diamant bi day day ànd su ko defee ñu teg ko ci loxo Soxna ay dara rek mais nekkul ni Wally day takk ñaareel Amy la Yaasi ñaareelu nit nga wax waaw ah man de ñaareelu jamaa bi laa bëgg ma moom lay xaar bu nit moom am nañ koo pare moom soxna mat na ñaareel mat na ñetteel jabari gone la ah, baax na soxna war na am wujju soxna warul am nag dama la bëgg a xamal leen soxna moom boo bëggee dégg dëgg am na wujju ndax maa ngi ni jaagaa ngi nii jaagaa ñaareel bi maa ñetteel. mama Aida nag yow taxul ñuy wax sa jaaga taxul ñuy wax. mais mais leen wax. yaay waali ngeen mënuñu leen a mënuñu a wax lu ñu xamul. yéen bu dee da ngeen ñu koo njëkk a yëg yéen wala yéen ci yéen lañ ko njëkk a jaarale wala yéen a war a xutba man ma xam te jàpp ko laa mën a wax tax bëgg ma wax leneen lu ci ginnaaw dëgg nag itamit kilifa laa ah man bu ma xamoon jour bi muy ñëw rek dèjà damay fuddanu waajal sama bopp ndegam wax ngeen ma ko nii xëy na yen tubaab yi wax nañoo ak yéen waaw ah, jàppale leen ma ci bopp. xam naa yéen info info info wax nañ leen li xew dan dimbali leen ma ci bopp kañ lay ñëw. waaw ah, ñooy info 60. ah yéen xibaar yeeg ak montage montage ngeen guro de waaye di guro gi nuroo naag dig si de jamaa beeg àndoor. Ah. kon chers internet a ko déggandoo Mama Aida na ñaareelu waale bi disque jamaa bi la ñuy xaar kon dañu bàyyi rek nag kon ni ma ko waxee sànq rek fi ak suba yàggatul li nekk si boppam nii. ñaanal leen ko rek loolu rek la de ñaareel boobu rek lañ fi gis de ñaareel boobu rek la ñuy xaar. waaw maman sànq ñu ngi ko doon waxtaanee ginnaaw terrain ya nga xam ne may na ko ay musicien woon ñu daal ko koy tuddee Cité Thione Seck yow bu nga ko gisee nan la la def première sa première réaction lan la woon. man Wally bu ñu woon moo may avion sax barke sëriñ Saliou Mbacké ma gëm ko. ndax la ndax man ndax maa woon yeneen bi Seydouna Mouhamed te wanuma ko man dong ma samay morom loolu la dem moo gën a cher terrain bi mu ñu yóbbu corona dafa jeex màkk di doog a ubbi mu jëlal ñu vol privé yóbbu ñu hôtel yi gën a cher teg ñu ci lu mucc ayib def ci ñun alal ju bari ñu ñëw mu nganale ñu nganale goo xam ne tabarki yonent yàlla mu xam ne xaaru ci lenn lu dul ngir liggéeyal yàlla ak yonent bi te li muy def ci ay nitam di ko def ci ay doomu aadama ak di leen ko jox barki xam Muhammad jar na satu kon kooku bu la nee dinaa la jox terrain waaye nag ku ne nag war ngaa mën a gëm lii nag boo bul ne lii mënuma ko rek kii du ko mën pour lan pour lan nga ne yow lii man mënuma ko mais doomu aadama bii du ko mën mais yow jàppal ni yow mënoo ko parce que doole foofu la yam xam nga ni man mii du ma maye teere ndax amaguma fu ma wér njëgënaay waaye yow amoo lu ma wér njëgënaay rek nga ni kii lu tax muy maye lu wér njëgënaay mais yéen ñi tamit nañu muñ te xam ne nag nangu ay ndogal day bokk ci jaamu yàlla mënoo ne doo nangul jaamu yàlla bii li ko yàlla defal da pare nga ne yow gëm nga yàlla tuuti tuuti boo nee gëm nga yàlla da ngay nax sa bopp nangu jël na cëru bañ nañu nangu nangu day yombali duma nii nag duma yi nii lay def nag ba nekk croix dóor leen marqué seen yaram ñu rus a génn. mais est-ce que nekk Wally Seck day déranger. mais déranger mënut ta ñàkk parce que nag xale bi yow tamit xam nga ni day déranger. <laughs> doomi sedd xol la. waaw maman parce que instant bi showbiz mais lu mu jaxasoo jaxasoo jaxasoo ñuy goree ngi gore lu mu riir riir riir ñiy nangoo ngi nangu li muy métti métti métti du ko tee bu boy jotee dina génn way te bu paree dina taal ñibbi incha allahu rabbi. lan nga xalaat ci diggante ba Sidi Diop ñii ñi di ko tekkal ak Sidi Diop. man boo may laaj ma ci ma xam sama doom ji Wally Ballago Seck. moom lay da ngay suivre actualité. non xam nga nag la leen man ciment laa benn yoon laay tooy man benn vision laa am ci way ñëpp sama njaboot la yal na yàlla d ñëpp li may ñaanal mbër yëpp di ko ñaanal footballeur yëpp di ko ñaanal waykat yëpp moom laay ñaan man ma maman national laa waaye nag boo bëggee dëgg-dëgg sek Seck dafa mel ni sama buti ji la dagge bi ma koy bi ma bëgg di ko di ko yëg xaaruma ci yii yëpp te moom laa yëg ba karamay làqoo sama bàmmeel bee. sa relation la démarré. yàlla la yàlla la yàlla ko ba ci sama xol bi rek muy chargeur ak fii la euh, téléphone rek day chargé sama fii. maanaam fu mu démarré fu mu démarré mënuma koo xam te mënuma koo natt mbir mi mbirum yàlla la yàllaa ma ko branché rek tëb mu daal di man bér na ma ne bu ko jaaga jur woon man ma koy jur man man loolu laa santi te loolu laa di ñaanal sama mag ji nag mu gudd fan yàgg jamono kenn juf jaaga ak képp ku ko ko yéene ci barke yonent bi ak ku waali am ak ku bokk ci estafam yal na la yàlla defal jàmm man maa bëgg waali sama xol bii moo bëgg waali bëgg naa ko ba pare engagé naa ko ba pare nekk na ci sama xol nekk na ci sama biir nekk na ci sama jikko te mënatuma koo dindi man moom sama vision waali la waali laa dama ko bëgg. je t'aime ah, waali waaw maman Aïda Saliou moom elle aime waali mais maman fan yi coow li bari na ci entourage waali maanaam biir Ramadan biir Faramaaleen ñu ngi dégg ne waali ña àndal dañ koy wax ay wax yu ñaaw dañuy woo dañuy woo ay nit gis nañ fi le cas ama di Badiane ak fan yi aadamo audio yi nga xam ne génnee na ko ci internet bi loolu waat lan moo ci sa jàngat sama buntu kër gi ma ne buntu foto waali ci buntu kër gi rek kër gi noonu la bari coow maanaam waale ànd ak coow mais waali mais lu bon lu kenn romb kuy romb ta say bakkan kenn du ko tudd mais ku ñuy ku ñuy romb di xencoo ko def nii kenn du la tudd mais lu baax la ñuy bëgg waali tey boo newul waali kan ngay wax boo nee président Macky ne Sadio Mané ci football Wally sekk nga ci teg ci way boo nee bëri ne Modou Lo boo nee vaillante du peuple ne soxnaay de Saliou après après mu jeex après keneen wuti leneen boo nee opposition ne Sonko jeex na lii la yàlla bëgg lii moo neex yàlla mu dogalee ko nii mu ko dogalee nangu rek ànd ak sant yàlla te muñ ku mën naan médicament kuy nettali dem uti euh, loolu garab boobu ñuy wax duuli paraan la xaw nga naan ko macha allah maman Aida waxtaan bi am na solo mais tey soo doon conseillé Wally en tant que yaay duma wax en tant bëgg bi nga ko bëgg mee tey en tant que yaay parce que nee nga dafa mel ni yaa jur Wally si sa biir en tant yaay soo ko doon conseillé tey loo koy conseillé bii laa koy njëkk a koy njëkk a conseillé patt gi na yokk dee leen dóor dóor bi saf bi nga leen di dóoree neex na ma mooy boole patt tey def li ngay def sañse bi yokk ko maar sañse bi yokk ko maar way neex na gën a la dolli maar del def muy mitti li leen jaaxal solo la léegi maye ko léegi ñu uti ko léegi te duñu am boobu léegi bu tukki jotee tukkil ndax bi bi bi bi sëy jotee sa yaay dafa sëy bi góorgóorlu jotee mu góor góorlu am la yàlla fayee coon sekk yàlla jaaga yàlla daf ko fayee góor gu baax guñ naan coon sekk coon sekk yàlla fayee ko doom ju baax duñ naan waali sekk waali sekk yàlla fayee ko jeeg bu baax bu ñu naan soxna ay dara yëf yi nii rek la demee bu kenn tiit bu kenn jaaxle mais Wally moo nekk koo xam ne bu la yàlla mayul fi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafa mën a dóor dóor bi moo dal bu la yow bëgg Wally ci xol leneen da caa xajul non xam nga lan mooy problème bi bëgg a bokk te bokk wees ama bokk bi nag pour nga bokk mooy metti nag carte membre yi fi mu ne dafa jeex carte membre waale waaw dafa jeex carte membre dafa am ay carte membre yoo xam ne ay kii la ay carte SBS la SBS ci xol lañ koy branché dafa jeex mhm. boo dugalee nii pour nga génne ko day métti de bëgg waale ci xol nee na xaj barke Seydina Muhammad nga bëgg waale ci sa xol muy doo xam ne cofeel la bu jóge ci sunu borom nga bëgg ko day noppal ab jaam doo am jabet doo am ndoxu siti doo am hémorroïde doo am fatiguement général doo am bloquement feebar yëpp dangay ngay nice da ngay di rafet di soulager di ree di yëpp day bokk ci bëgg waale ah. Mm. doo banque. <laughs> macha allah maman am na solo ba tey rek ci cofeel ba nga xam ne maman Adji Sarr bëgg na ko Wally Seck gis nañ ni fan yi ay entourage am ci mel ni Amady dafa jege Wally diggante mag Wally soo ci doon wax loo nga ciy wax wala soo amoon loo ci loo ci yokk diggante baay ak doom diggante nijaay ak xaritoo diggante bëggante diggante soppante Wally mooy jarbaatu Amady mooy doomu Amady mooy xaritu Amady mooy lépp Amady mooy papay Wally ndax am na waali mu ndaw parce que dañuy naan Eumeudi Badiane moom day dafay indo dawal ko boy ci suuf moo tey lu ko neex mën na koo def lu mu def neex nan ah moo tey lu mu bëgg a def rek na def lu mu bëgg wax it ko wax moom la rek rek moo tey maa lu mu def neex na waay mooy lépp buntu boo am buntu kër buntu kër goo gis am na porte am na yoon te yoon wi nag Eumeudi Badiane mooy mooy buntu bi mooy buntu bi njëga Europe bunt yi dafa bari ay boroom waali yorul appartement yorul studio kër la yor immeuble kër bayaal kër nag bu yaatoo day bari njaboot ku bëgg ñëw mën ngaa ñëw ku bëgg ñëw bëgg lu baax mën ngaa ñëw ku bëgg a noos mën ngaa ñëw ku bëgg a xàppi mën ngaa ñëw foofu amul sandi su guddi amul mburoog ndambe guddi waaye nee nañ Wally day yàqal Sidi Diop parce que Sidi Diop day defar moom mu jël ku ci mel ni jàpp nday njaay baa na yaa bu loolu sama yoon nekku ah, loolu waat il faut waaw loolu sama yoon si man mënuma xam li nekk fee xam li ne fii ma dëkk laa xam li fi ne leneen li jëntiwu mais cin li li ciy xeeñ ku romb da lay xeeñ te am na ñoo xam ne mënuñu maîtriser yenn yi xam nga tamit yoo tamit nag naa indi bi ngay wër kër yëpp fii nga ñëw ma laaj ma. dëgg neex. ah fii moo gën a neex nag. daal showbiz noonu la mucc gi foofu moo tudd mucc gi. kër waali moo tudd mucc gi nag jàmm ji dalay lay ree di la may xaalis di la kot di la may xaalis ngay sañse sa tee di soppeeku. yaa wax lii. waaw ah wax tamit nag nga ñu te dëgg nag lu waay bañ bañ bañ gis nga nit xol la yàlla di fay. barke Seydina Mouhamed man ñëpp laa bëgg man uma kenn xaar ma yàlla parce que sunu borom mooy jagle ay jaglem te boo nangoo jagalu sunu borom rek fi ni ma de tudd ay Saliou nii ku ne bëggoon naa tudd kenn ku sëñ Saliou mais mënoo koo tudd ba tudd naa ko ba pare fi mu ne boo nee Aïda Saliou ñaar rek ay génn Aïda mu Cheikh Béthio ak Aïda moom sëñ Saliou te Aïda moom sëñ Saliou nogay mu sëñ Saliou mën mu sëñ Saliou mën na am nday mu sëñ Saliou mën naa am ku ne mën naa am mais Aïda Saliou benn ndombawan je suis moi c'est moi waaw maman temps yi dafa mel ni sa wàllum liggéey foog waat il faut ñu ñëw ci toog parce que dañoo gëj a dégg say mbir nu mu fa demee noonu. man damaa boole ñaar léegi dama xam nga man dama damaa xew ba qualifié réseaux sociaux daf ma doon jaay jar na am naa prix léegi maay maa ngi quinze mille femme ci sama ginnaaw ne réew mi bu ñuy fal maay fal de. waaw maman da ngay waaj dugg ci politique bi. dugg naa ba pare. man moo àndal ay dem ah, Amadou Ba ay da APR. ah kon yow APR. engagé wu naa signé naa. mais maman yéen a ngi waaj a dem de. ñu ngi waaj dem fan. fan. maanaam yéen a ngi waaj a dem de. non ñu ngi waaj dem pale 2024 ñooy dem pale. loolu wóor na. ah incha allahu rabbi. Hmm. ñànk tànk daa am tiir maa dugg damay politique. da ngay politique lan ngay wax tey Amadou Ba. soo ko doon wax Amadou Ba dara laa dul wax lu dul moom xam na li jeune yi di xam na li ñu bëgg te jeune la. xam na li jeunes yi bëgg xam na li jeunes yi jooy parce que Pastel la nekk am na fi seize dund Pastel xam Pastel li fiy dox xam li sénégalais di jooy yàgg dégg jàmbat yàgg dégg jooy te kuy jooy du nax kuy jooy na nax gone yi ci li ñuy jooy mu fajal leen ko. yaakaar nga ni Amadou Ba wax nañu mën a apporter sénégalais li ñuy xaar. apporter sénégalais yi. maanaam li ñuy xaar dund bi tey cher na bëgg nañ dund bi wàññi bi mi xam nga li fi métti woon. yaakaar nga ne Amadou Ba mën nga mën na faj soxla sénégalais. ah yow tamit. non damay laaj rek. yow bu dul Amadou Ba fii kan nga fi gisaat ku mën a ah, koo mën a wax. war a mën a nekk ci président ëllëg bari na. mais waxatuñ loolu. ay carte tay fal te ku ñu jox sa carte di nga xam loo ñuy observe duñu duñ jox duñ jox n'importe qui kuñ gis sa jox sa carte de. suñu carte da ngaa jàpp ne Amadou Ba moo ko yelloo. Amadou Ba dañ koy jox suñu carte yi gagné réew mi mu toog ñu ànd ak moom mu liggéey réew mi liggéey bu rafet bu mucc ayib bu civilisé non violence liggéey xool xale yi li ñuy jooy. xool fi ñu nekkoon mu jëlee ñu foofu yóbbu ñu feneen ñu ñett ñi lañ am suñ doom yi dee ci gaal gi suñ doom yi dee ci gaal gi mhm. yoonu ne korogoro gaal la xaw ma euh, taal bolotoof molotoof ak xeex sànni xeer lacrymogène loolu la ñuy bañ ci suñu eh, lu ma rek ma wax la dëkk bi dina dëgër parce que li fi baaxoon yëpp taal nañ ko osan bi nga xam ne amoon naa fa ku fay liggéey kenn am fa lu mel ko yóbbu ko ci kër yi mais jeunes yi dañoo sonn dañ may déglu fii bu dee ku sonn dem sàcc ci kasa bi la ñuy dee yow yaa ngi nii eh, am nga jëkkër oh. yaa ngi toog ba ba léegi da ngaa toog fii di lal awaa jaayoo sa der di yaa ngi toog di xaar yàlla yor micro man maa ngi toog di bombi petaaw di xool samay doom. mais Sénégal la ñu wax dëkk démocratie la man wax Sénégal pays démocratie la faaw mu metti waay faw mu neex bu mettee nag ba nu xam ne carrément ñi waroon a liggéey te saare li ñu leen jox ci réew mi président Macky mi ngi liggéey mais xëy na ña mu liggéeyloo ñëpp liggéeyuñu foofu la problème bi nekk. ñamu ne dem leen liggéey ci gox yi ñoo liggéeyu ci seeni gox parce que kenn ku ne bu ñu la joxee nga dëkk ci gox bi wala régler gox bi di xooloo jàmbatu gox bi xooloo luy métti ci gox bi fajaloo kenn luy métti mais dina métti. kon ñu nekk ci gox bi maanaam mairie am nañ ci responsabilité moom revendiqué wu na xool kañ fi bàyyi woon kañ fi bàyyi woon dóor naa ko 4-0 ne ko puusal man maay engagé wu dugg parce que maa nekkoon ci social ak dem maa xam kër yi jooy. waaw ah, maman yow ko dégagé foofu. li ma dégagé bari na yàggal la yóbbu sa micro bi rek. biir assemblée nationale kay laa jëm moom. déedéet kay maman Aïda Saliou biir assemblée nationale loolu bës la de. nañ ko xaar jaru mu nekk bës nag ndax miin naa social miin naa développement xam naa kër yi manqué gaz xam naa kër yi manqué ceeb xam naa ñi feebar bëgg a faju te faju wuñu waaw maman ci biir loolu sa social bi ngay def c'est c'est tellement intéressant mos nañ ci waxtaan mag yow tey social boobu fan la toll gën a yokk cere dooli ñeex a dugg ci social bi man na ba social sama ndugg tey dong ci mujj sama waa kër ñu ndékki bi ñu doon ndékki dama ko social jox ko. macha allah man damay social ba social ndékki moo ree fóot sax am ko war a fóot ma jox ko saab bi ndax bëgg moom mu nekk si jaamu man maa ngi sama kër nit mën nga socialee nu ne togg añ génne benn bool sa social la ah, ah? munoo denc un million deux million takkaay nga denc ci ñaari million gis kuy jàmbat bëgg a dem hôpital wala bëgg a matu te mun ta dem hôpital dañ koy jël dugal feneen. maman yow da ngaa yor mbootaay. ay. ay mbootaay man ay pamel laa yor pamel yi mi ngi fépp keppaaru Soxna Aïda Saliou mu ngi Pikine mi ngi Caaroy mi ngi Malika mi ngi Jàmmagën mi ngi Nord Foire mi ngi HLM mi ngi Gambi mi ngi Touba mi ngi Ndar mi ngi Jurbel mi ngi fépp 46 laa yor. 46 groupement nga yor. groupement. macha groupement ak yi doog a bokkaat ñi nga xam ne barki démb Tiwaawoon Pël tawféex laa dem xam nga ne tawféex ñi dëkk Sokaabeek tawféex problème mu tali lañ am barki démb ñaata femme laa fa dajale. cinq mille femmes laa dajale ñoo xam dañoo liggéey ma joxoon leen financement ñu liggéey ba at mi dellu te bi ma leen di jox financement engagé wu ma ci politique sama doole bopp laa doon social di leen ko jox ñuy liggéey parcelle noonu feneen noonu feneen noonu est-ce bu ma demee am dara ci état bi xam naa fii métti su ma jiitalee Amadou Ba ne ko kañ dem fii dafa am lu fay métti mu faj foofu ma yóbbuwaat ko feneen parce que am na gox goxaat yoo xam ne naa fa xam naa li ñuy jooy nax ñu xam lan la ah mais Sénégal il faut que seet fi dara nekkul woon ñu jéem def fa dara te loolu ku mel ni Aïda Saliou du ma tëdd ci ker gi rek nopp rek nekk ci li may liggéey non non damay génn volontaire jàkkaarloog askan bi pour jooyal ñi nga xam ne tey banlieue bi ñu nekk pour ñu paas ñëw dakaar sax day metti dañuy toog un mois duñ dem parcelle ndax ñàkk paas mais ku xool tey BNT bi xool président Macky liggéey xaaral ba la la quatorze daa mel ni sa doom moo koy inauguré gratuit xam nga ni kii baax na ci réew mi ñu dawal BNT ci jàmm mu gaaw ci jàmm mu wayal ñu suñuy xol di neex ñu jaarale ci werante bi. macha allah am na yàlla yàlla def jàmm xel macha allah maman ci biir social bi de damay gis ak euh, weeru koor dafa am benn social bu mag booy faral di organiser te koor gi incha allah mi ngi waaj a ñëw noo koy waajalee. balaa koor gi appel bi ñun dañoo am appel am koor am màggal am social chaque jour. macha allah fii kër Soxna ay Aïda Saliou am na xale yoo xam ne dañuy dem ba am dix ans kenn du leen xarfal. ñu war a soxla nga dajale dix booy wala quinze booy dem xarfal leen loolu social la ndax ñu ngi jàmbat la bu xëyee def sa laax bu baax tibb ñeenti bool yóbbu ci ñeenti kër ñu xarfal xale yi nga dajale benn kër gu def ñetti xale mais social la ay waay social poosé bëñ sax nit jaal nit am ay bëñam yu manqué sax nga pooseel ko ko sax social la man damay social bay social poosé ah. tuufaay ay veeru meet mais man lu ne laay social social daal jigéenu góor laa dul boole di leen social loolu daal laa defagul ci social. Ah, waaye ay accouchement yëpp dama koy social. waaw nga bëgg a dem accoucher ma yóbbu la nga accoucher nga war a def écho ma yóbbu la hôpital nga def écho nga war a faju ma dem di ñaanal masoor waaw major yi major yi su ma nee benn major sax damay juum su ma nee major dalal jàmm mi ngi ma ciy jàppale major principal maa ngi may jàppale rëq-rëq yeeg damm-damm yi major taalibe Serigne Fallou bi xam nga li may wax man ñi may jàppale danoo bari sama doom Wally set maa ngi koy sant di yi xam yor kaabu kirikit boo xam xaaju guddi laa koy mu ma yaay engagé ay kaa doy waar ay staner ay nit ñu def ay suug da ngay gis oto def ni dara daw dem kooku jaaxle ay mbokkam jaaxle xam boo ko si daane tuuti mu ñàkk bakkanam mu may taxaw yooyu ngay taxaw sama doom yi nga yaakaar ne di nga faay mukk ci àdduna ak sama doom ji saw pour la jéeri du ma wax Pape Thiam borom inspecteur impôt et domaine waaw ñu ngi ñëw ci remerciement yi <laughs> macha allah des na ci biir actualité bi ah, ah, maman ah, bul tëjagum parce que yow jigéen nga à tant yaay ah en tant yaay yow jigéen nga yaay nga soxna nga te li nga xam ne xew na fi ci fan yi Sénégal ñaari xale yooyu ñu fekk foofu ca kër mbay Fall ñu daal di gaañu ci oto bi ba tey enquête bi ñu ngi suivre xale yi nee nañ def nañu autopsie bi génn nañ denc nañ kenn ki moo gaañu kenn ki gaañagu en tant que yaay lan moo ay yan sentiment nga ci am. xanaa jooy bay bëgg a dee ak jël sama doom yi rek taf di nelaw rek fu ma jot nelaw ak ñoom fan yëpp damaa tiit dew ma Dakar maa ngi toog yaay yëpp tiit nañu la. ndax da ngay xool nga toog wax toog ba waxtu wi dellu si nga yuuxoo ko onk ba yàlla tiif yàlla tiif ba mu ñëw boo sañoon nag lu koy jëlati looy xam lay doon mais mënoo xëy xëy rek ñu la sa doom dem na mhm. ci demin bu ñaaw nga gis ko loolu li mu dagg dagg sidit bu dagg la te naa la xamal leen de yuuxu dina jëf fuñ ko yaakaaree wut de ndax la yàlla baax na yàlla na yàlla nit lu ne la nit mën a def lu baax sax boo ko defee feeñ waxantuma laak lu bon te bakkan dafa foor surtout mhm. tout tànk mhm. man xam nga la li sëriñ Saaliw laa te tout tànk yi su ma sañoon dara du leen metti waaye tout tànk yi dañ leen yërëm xale moomin la xale xamul dara nga jàpp xale di ko teg lu metti loo xam ne ah xajul sax ci mag xale xale xale ak ni mu oyofee est-ce que kooku mu ngi xol kooku kooku poson la ci kër te ci kër la jóge mhm. ki def jëf ji ak ku mënti doon ci kër la jóge te bi mu koy def sentirul dara kon nit ñi nañu ragalante te bàyyi suuraale xale yi sa doom bu jàngi jee sax yow bàyyi li ngay def nga lijjanti sa doom ba mu ñëw nga taal añ bàyyi leen xale yi ngeen di bàyyi ci seen ci seen i liberté xale yi nañ leen saytuwaat xoolaat xale yi parce que lii doy na waar doy na waar doy na waar jaboot toltu tukki tala deele dafa metti il faut que tamit loolu moom na ci parents yëpp jóg jël seen matuwaay ci seeni i doom ndax massa dong lañ lay wax mm-hmm. fi ne li muy metti metti ku ñëw benn baat bi la lay wax massa muñal massa muñal yow na ngay yëg li ngay yëg nañ dafa métti xale bi xale la te beneen xale bi bi bi bi dund sax mais dund gënalu ko parce que metti na loolu dootu ko fàttee ci mukk image la bu doy waar waay ay yàlla baax na yàlla yàlla nit macha allah amin mama am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax macha allah ñu ngi leen ñu gërëm <laughs> chers internautes diaspora 221 di leen jox rendez-vous à très bientôt allez merci diaspora 221 Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.